di yëkkati ay kàddu yoo xam ni maa ngi ko jëme ci képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax lépp lu waaye di wax te mu jëm ci dëgmal sëriñ tubaa rekk loola moom mooy islaam ndax sëriñ tubaa mooy islaam moo tax jamono yi paase dañoo dégg ay kàddu yoo xam ne war nañ caa mën a sànn suñuy kàddu ndax képp ku jiite mbooloo ñu lay diglu nga ne da leen di orienté ci yoonu dëgg wala islaam lépp loo xam ni gaar na jëm ca côté boobee war nga caa mën a am taxawaay donte nag wax lu ñëpp ànd yàlla mi bind jaam ñi sax amu ko waaye nag nga wax sa aqulaay taxalaa rek am na genn kuréel goo xam ne gis naa ni dañoo sosu ñu tudde seen bopp kuréelu sàmm nonay mag ñi maanaam kuréelu sëti cheikh yi ma rafetlu kuréel gi lool nag doonte man sax bàyyiwuma ci woon xel waaye bi ma ko gisee kuréel googu moom rafetlu naa ko jëmmi kuréel gi maa ngi sàkku sax bu sama kàddu yeggee ci kenn ku bokk ca ñoom sun ma jaayee carte de membre dinaa ko jënd insha allahu rabbi ma dégg leen ñuy àddu ci mbirum sëñ gànn mi nga xam ni dañ ni daa am kàddu yu mu wax euh, ca la ma ca dégg ca kàddu ya euh, man juyoog lool euh, li li li mu war a wax la ma dégg ci ay kàddoom ci li ma dégg ci vidéo yi ndax internet moom léeg nga dégg loo xam ne sax dañ koy kole wala ñu dagg ko waaye bu dee loola moo ko wax xëy na loola di njuumte waaye nag njuumte loolu dinaa ci wuuteeg ñu bari xalaat ci ñi nga xam ne dañuy wax a jëme ci moom ndax dañ ne nit ku nekk boo dee ànd ak moom da ngay jël ay jëfam ju baax di ko muure la nga jàpp ne dalaa naqari ci moom te sëñ gànna taal sëriñ Tuubaa la te ci yoon wi la bokk te nag liggéeyam bi nga xam ne bari nañu génn di ko soofantal ba jàpp ne daanaka booy xool daanaka day yàq waaye defarut nañ yëg ni am na ñoo xam ne ñu ngi woote ci yenn barab yi buwaat yi ak barab yi ni caaxaane ndaw ñi di leen influencer di leen jëme ci loo xam ni neexut sunu borom li ëpp ca ñooñee di def loola kalaasu gànn gi dañ leen dañ leen caa dimbali ndax bari na jeunes yoo xam ne wëlbatiku nañu tey bëgg sëñ Tuubaa wala ñu ko doon bëgg-bëggul ba far ko bëgg wëlbatiku nañ tey di jàng xasida yi sëriñ Tuubaa walbatiku nan tey amuñu benn yitte bu dul dox jëm ci Sëñ Tuubaa te loolee grâce ak à ak ñu mel ni moom ngir ni muy waxtaanee sëriñ bi bu fekkee danga ni sax la muy wax tegu ko fenn walla jàpp nga ne am nay njuumte dama lay wax la waykat ba waxoon ni ndax nit ba xettali ko xaw ma nu ko waxee noonu ndax ñoom moom dey defar na lu bare bare ci ndaw ñi ñoo xam ni tey jii bu du woon ak jëmmam jooju ak waxtaanam yi muy waxtaan danañ dëgmal lu leen yóbbu sawara te loola Sëriñ Tuubaa bu ko xam naa ni ndax gindi benn doomu aadama rek tuyaaba ci nekk kenn mën la koo misaal kon loolee buñ ca xoolee rek bu fekkee njuumte daa dikk kilifa kenn du ko yedd ci pénc gis naa ne war nañoo mën a def délégation dem waxtaan ak moom ni ko ah yow de li nga wax tey jii dangaa juum wala boog ni nga ko waxee du noonu man xam naa ci gànna oyof goo xam ni ak baay faale goo xam ni ak bëgg sëñ tubaa goo xam ni ak wormaal nit goo xam ni bu demee woon noonu mooy génnal boppam daal di koy tuub wax ca kàddu yoo xam ni dana sedd xol yi képp kuy sëtub seex <coughs> wala ngay ab taalibe murit te su boobaa kenn duñu xamal dara ndax am na xeeti wax yoo xam ne boo xasee jug xamal fa muy tàmbalee waaye bul xam fa muy yem te loolu du melakaanu taalibe te wax ji da gis ni ci biir fala tuaadu man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illa da cee feeñ la sëriñ tubaa ni woon booy lim say noon bul ca boole ki nga gis muy wax laa ilaha illa xanaa di ngeen d'accord ne gànna mi ngi wax laa ilaha illa te ci biir tontu yi dangay gis ñoo xam day mel ni daa am lu ñu dencoon mbirum gànn mi ñëw daal di koy euh, explosé ndax loolu léeg-léeg nit wax rek nga xam ni kii li muy wax ëpp na li ko tax a jóg waaw loola day faral di feeñ ci ay wax kon nag gisoon naa ni li mu liggéey ci yoon bi ci waxtaane Serigne Touba ak i jalooreem te gànn boo génne woon ci ay kasetam waxtaane yi mu waxtaane cheikh yi ay kasetam jeex li ëpp ci ay waxtaanam nag laa wax ci li ma xam mi ngi jëm ci seexi sëriñ Tuubaa yi waaw li ëpp ci it ñi koy soutenir te yëkkati ko ba mu yegg si fii tey mi ngi jóge ci taalibe seexi sëriñ Tuubaa yi waaw kàdd googu mu wax ni ku ni sëriñ Tuubaa li ma sama maam defaluma ko daal cee teg yooyu mu ci teg bi muy tuub mu dal di wax ni dafa am lu ma taxoon di wax loolu lu yenu maanaam parce que instant dafa xaw a doy waar la tax ma gëm koo mooy man mii gànna wax nag man ba xamal ma ni ma yéen ak baax moom dafa dafa yàgg ci yéen jiit sëñ Tuubaa di ñëw kon koo ki wax loolu du dëppaat di weddi mag ñi nga xam ni am nag baax gu nekkoon ci ñoom waaye sëriñ Tuubaa daa ñëw xotti baax sëriñ Tuubaa moom daa xotti baax loolu ñëpp xam na ne sëriñ Tuubaa ay wàllu la fekkoon yu mat sëkk waaye moom day lu kenn xamul loo xam ni kenn xamul ay mbiram moom daa ñëw rek li ñu naan xar aada dafa xotti baax moo tax mbaaxu Sëriñ Tuubaa gi kum tàbbit sa biir baax gi sa baax ga dudul feeñ foofee la gànn bëgg a waxee nañ ko comprendre foofu te suturaal ko te xam ne ab taalibe la te xam ne it kuy liggéey ci yoon lu bari te bañ koo xeebal ni muy doxe ci Sëriñ Tuubaa ndax dimbali nañu bari de bari na ko samp daara di jàngale alquran wallahi la wal quran al azim li gànn tàbbal ci yoonu murit convaincre la ba nga gëm Sëriñ Tuubaa ci doomu aadama lim boobe yàlla dogal na seegul ci yow donte ci lu baax ngay nekk kon nag eh, gis naa ni daal mën nañ koo war nañ koo mën a oyofal te yedd ko ci waxtaan woo xam ne du doon ci am pénc oyof na lool moom it mu xam ne lii mu wax teguwul ci ni mu ko war a waxe ñu comprendre ko moo gën attaques yi ak ni ñuy dala ci kaw man de loolu rafetluwuma ko te te ànduma ci ndax ab taalibe la ab julit la ab murit la te ci yoon yi la bokk amaa nag ñi dem bay dugg ci démbam ak tayam xam nga xaatimatul xusnaa rek moo am solo mooy mujj ko rafet xaatimatul xusnaa rek moo am solo te nit ku nekk la ci sa biir yàlla rek ko xam nit même bu nekkoon di naan sàngara di tox yàmbaa di def lu ko soob xëy dëgmal ak baax dañoo war a fàtte lépp lam nekkoon te xam ne ci lim nekk tey rek moo am solo kon démbi nit ki amul solo tey nit ki moo am solo nit ku nekk bari na ku démbam baaxoon lool ak mu jëm ñaaw lool bari na ku bokk fu baax lool te kenn du la nawloo bari ku bokk fu kenn xamul ñëpp nawloo la waaw loolu yaakaar naa ni misaal la ci lu baree baree baree bari kon nag maa ngi sàkku daal sama kàddu yi nañ ma jéggal waaye nit ku nekk dangay wax li nga yëg ak li nga gis mooy su ma sañoon daal sëñ Gana ñu xam ne ab taalibe la te wormaal ko amaa nag commission boobu nga xam ni ñoom ñoo taxaw di di seti yi di défendre mag ñi loolu moom ñëpp rafetlu nañ ko ndax loolu mënta ñàkk sax ndax loolu dafay leeral lu bari waaye mbirum sëñ Gana mii daa bokk ci ñun di taalibe ci yoon bi te it bu leen fàtte ni noonu démb ya dañoo giim rek mooy ña noonu woon sëriñ bi waaye ba léegi ñu ngi fi te it yàkkamti nañu yenn yi di xew ban ciy buruxlu di ci wax lu ñu war ta wax ngir déstabiliser taalibe yi ak ñi aju ci ñoom te loolu mën naa ñàkk kon nag maa ngi sàkku ñëpp defaraat toogee nii rek di ko jëlee sama bopp te yeesal xol yi te yéeneente jàmm te yàlla tax te kenn ku nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te yàlla suñu morom tax la mag ñaam ban koy am gànn fekk wu te mënu koo dindi ci ñoom dëgmal gën dëgmal sëñ Tuubaa itam dara mënu ko mënu caa wàññi dara gànna tut na sax ci wàññi nag wax dëgg yàlla kon nag maa ngi jégalu ñëpp tey baalu ñëpp xaq asalaamaaleykum